ñun nag tey dañoo parler wax ci turu askan wi wax ci turu jigéenu Sénégal yëpp ñi nga xam ni boo leen dee seet ñu ngi ci biir opposition bi man soxna présidente de la coalition de Jëf membre de l'IDI 2019 mais tey dañoo wax ci turu femmes yi nga xam ni ñoo nekk IDI 2019 wax ci turu femmes yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci président Sonko wax ci turu jigéen ñi nga xam ni ñoo nekk ci président Issa Sall ak ñi nga xam ni ñoo nekk ak président Madické Niang li tax ñu am sañ-sañu def ko dañu xam ni jamono biñ toll dafa am ñu jàmbarloo mooy askan wi mooy ñi nga xam ne moo ànd ak opposition bi ak ñi ñu janoon te jàkkaarloog ñoom te li tax ñu woote tey loolu bokk na ci di rafetlu nag taxawaayu jigéen ñi ndaxte nekk nañu benn bopp nekk benn say remercier ñëpp ñi nga xam ni ci biir askan wi ak foo mënti nekk ak koo mënti voteel si ñi nga xam ni ñoo nekkoon si opposition yi candidat su doon benn nit nga ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la gërëm di la sant di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax benn vote boobu moo tax bu ñu bu ñu jëlee opposition bi yëpp ñu ànd ñi ñu janool soo gisee seen baat yi ñu am yëpp boo ko defee ci wàllum pourcentage ñu ni téeméer bi ñoom jëluñu genn wàll gi ndax wax du am loolu lu ko ëpp dañu nekk ci genn wàll gi lu ko yées genn wàll gi lu ko yées mooy ci téeméer gi ñoom dañ ci am 46,66%. virgule 66 xam nañu ni bokkul ak juróom fukk Waye juróom fukk sax boko amé mëno ci dem premier tour li tax nak mënul nek moy so nek ak sa askan élection jot mu nek bis bu nga xam ni ñëpp jox nañ ko cër nit ñi teel nañu yeewu teel a voté fas yéene changement bi teel a am waye ñu indi leen ay gàllankoor galankor yi moy bureau yi buñu télé ibi tamit dafa am ñuy organiser élection nit ñi ñëw 7h30 8h am na bureau de vote yu nga xamni commencé wuñu waye biñu commencé loolu moom metti na ci nit ku nek muy goor muy jigen muy mak muy ndaw nga dox ay fan ci semaine boobu rey sa bu am sa carte électeur nga ñëw gis ni mëno mëno voter metti na waye li gëna metti moy ki nga xamni dugg na ci biir centre de vote am gis kàrtam war a wër nag centre bi muy voté war a wër bureau bi muy voté te du mën a voté mu nekk ay jiixi jaaxa yu nga xam ni nit ñu dund nañ ko waaye taxul ku si nekk da nga taxaw temm ni lu mu la mënti jaral di nga voté waaye ki votéwul moom am na ko ko voteel te loolu moo exprimé wu tey mooy askan wi ñoom ñoo ñëw rek ni ñun dañu bëgg changement waaye dañu bëgg rupture ak ki nga xam ni moom moo fas ne nag ñëw ci raw gi ñu jàpp

kon ñun mën lal basang Touba lal département waye kon ci département yépp lañu parce que bo jëlé opposition bi réunie dañ leena daanel bu ci souf té ñom bala ñu jog dina nous waye ñu ni nak dañuy nangu patu askan wi mais askan wi taxaw ni duñ ko nangu ndax nangu patu askan yombul ndax askan wi ku leen am face da ngay mujj daanu ndax ñom ñoo la ëpp doole waye ku am dëgg ci ñoom ñoo lay daaneel parce que dëgg rek mooy yàlla te yàlla mooy dëgg tey nag moo tax femmes yi ñu doon ñun jigéen ñi ñu doon gis nañu sànq concert de casserole bu baax am fi te dañu bañ sax bruit bi gën a yokk parce que jigéen moom ak ay façon am ak feemam te ñëpp xam nañu ne àdduna bu mu dukkee ba tey fii si Afrique jigéen ñi dañu am wàll jigéen ñi dañu am taxawaay waaye bis bu nekk bu ñu nekk si tournant bu décisif

bu ci suñu ay doom di jëlee gaal ñun sonn nañu bu suñu ay doom toogee di naan ataaya ñun sonn nañu te gënaluñu waaye bu suñu doom feebaree te mënuñu faju tam ñun ñooy gën a sonn kon loolu mënuñu ko dund juróom-ñaari at ñun di xoole ñun ba ñu koy fas yéene dund ndax mënul nekk moo tax ñu ni dinañ taxaw temm waxuñu rek def conference de presse mais dañu ni àdduna lu nit jaral nit pour nga taxaw ni man la te amoo si yaakaar moo tax juumte gi am war wax 54 ñii di wax 57 teguñu ko fenn ñu ni nag ñun dinañ taxaw temm ba lu mu leen jaral dinañ jaral lu ko raw ñu ni nag jaraluñu ñu naan dañuy lakk dëkk bi dañuy génne nit ñi ci mbedd mi te fekk suñu ay doom génnuñu dañuy jóg taxaw fekk na suñu ay borom kër nekkuñu ci biti waaye ñun génneew ñu askan wi askan wi ñoo bëgg ñun ñu génn ñun génneew ñu askan wi askan wi ñoo fas yéene génn génneew ñu askan wi askan wi ñoo am lu leen metti waaye nag jigéen ñi jiitu si taxaw xaaruñu góor ñi si dara parce que ñoom li ñu nekkee métti na war nañu gisante war nañu waxtaan war nañu ànd nekk benn moo tax ñu ne nañ leen yombalal yëpp na ku nekk téye sakaat ba pare fas yéene nag taxaw kenn du xeex kenn du xuloo waaye li ñu am dinañ ko jël ba mu mat sëkk lu mu ñu jaral tam dinañ ko ci def parce que nag am na lu nga xam ne nag lu ëpp tuuru ñun ay jigéen lañ dañuy togg képp xam na ni marmet boo ko jëlee baxal ko ba mu bax tëj ko xam nañu day ibbeeku tuuru te loolu lañ ñu bëgg a def loo ndax vote bi metti na processus électoral bi ñaaw na waaye nga ñëw nag ni nag tey damay def li ma neex wane li ma neex ba pare fas ne taxaw seen kaw diggu bopp yi ñun ay musóor la ñu yor dinañ ko dind ba ñu wadd kenn du fi jaar suñu kaw moo tax ñu ni na ku nekk taxaw jigéen ñi nag ñoom la ñuy waxal ndax bu jigéen taxawee mooy doom taxaw na bu jigéen taxawee mooy càmmin taxaw na bu jigéen taxawee mooy borom kër taxaw na nañu ànd ñun ñëpp sénégalaises et sénégalais yi nekk fii ak yi nekk ci diaspora bi ak képp ku nga xam ni nekkoo sénégalais te bëgg nga réew mi ñu ànd ñaan wax ni na askan wi taxaw waaye ñu ànd wax ak yi ñu janool que li fiy waaj a xew su fekkee dafa nekkoon seen xel te ñu nekk ay nit te bëgg jàmm te bëgg réew mi ñun ni ñu bëggee réew mi taxaw fii di wax na ñu xam ne loolu mënul nekk te ñu dell ginnaaw bu amna jigen ñu bax ñu nek ak ñom nañ leen wax li nga ne dëgg bu ñu seen jaxanaay nañ ne Sénégal mérité wul li nañ leen wax seen borom kër yi parce que nak seen ay doom duñ ko nangu seen ay jigen duñ ko nangu seen ay chamine duñ ko nangu kon tay li xew rek mo taxaw ñu jog ñew tay di wax ak ñëpp ni du raw encore une fois du raw du raw du raw du mooy ku am juróom fukk ak lu ci topp mën nga dem waaye yow soo weesoo juróom fukk mënoo dem danga koy nangu te yàlla tax